pare ña fa nekk ñun en tant que baykat jàppu ñu ne ñoom mën nañu wax suñu soxla parce que gëmuñu ne ay baykat ñu ngi wax ci kuréel gi xam ñun dañu doon am sax laam-laamee naan amul benn baykat boo xam ne yaa ngi ci seeñaa waaye day dafa am waxtaan bu xewoon ci benn plateau man ak koo xam ne moom mooy porte parole de Sénia mu leeralal ñu ne moom mi nga xam ne moom mooy porte parole de Sénia ñun moom lañ doon am situation sax dut na moom lañ tuddee ki nga xam ne moom mooy baykat ba représenté kii mu wane ne carrément mu ngi fa waaye bokkut ci li nga xam ne ñoom ñoo décidé donc tey Sénia dama lay wax ne ren bi ñuy génne jiw bi dañoo créé benn comité ad hoc ne ñoom ñooy tànn définir li nga xam ne moom mooy prix bi tey bu fekkoon ci réew mu valable lañ nekk keneen ki nga xam ne wax nañ ne suñ mbokk la béykat la moo ñëwoon proposé mille francs dafa ñëw couche forcé na dafay dugg mhm. ba mu ñëwee dañ ko bañ ko ba dañ ko bañoon a may mu dugg ñu fa mujj may ko mu dugg ñu toog bàyyi ko mu toog kom kuy observé mu sànni li nga xam ne moom mooy kàddu mu ñu koy nii mooy Ibou Thiam nga xam ne Ibrahima Thiam voilà mais bokkul ci ñu waroon dogal dafa ñëw toog pour seetaan comme yow mi fa nekkul comme man mi fa nekkul donc ki nga xam ne jàppoon nañ ne moom lañ wax ne moom mooy mbubboo baykat bi te centre ñu ne baykat la dëgg-dëgg mooy force paysan moom mooy la moo yor porte-parole de Seyna kooku moo ne moom ci boppam sax dogalul joxul pii maanaam tàgguñ ko ci amul ci xalaatam dañ pare rek ñu ko léegi su fekkee ne ay baykat ñoom ñoo bay seeni tool ak jafe-jafe bi ñu am fi ñu jaar yépp ñu toog jox ko kuréel goo xam ne xamuñu fi baykat bi jaar wala yëguñu ko ñu xëy joxe ab prix loolu dañ naan jaaduwul parce que baykat fi mu jaar bi mu commencé ruuj ba fi mu foree manko jafe-jafe yi gerte bi la mu doon jënd gerte jiwoom nga xam ne 400 francs la ko doon jënd ñetti at ci ginnaaw fu mu ko jëndee 1200 ba jàpp 1500 francs engrais bi ñu ko jënd ci ñoom ñi 6100 francs bu dee ci da dem ci boutique yi nga jëndee ko fa 8000 francs fu mu mu dem ba 25000 jàpp 30000 bu fekkee jafe-jafe yi nga doon loué sa tool ci trente mille fu mu ne nga dem ba cinquante jàpp soixante mille ci benn ab hectare nga doon fay ab xale képp mu lay wallil ab journée nga koy fay deux mille fu ko am lu dul ab quatre mille nga ko doon def léegi yaa ngi koy fay ab dix donc jafe-jafe boobu fekkee na tey ki nga xam ne xamul ko waxul ci baatu béykat nekkul ci tool yi mm. bu nattee ñun dañ naan duñ ci d'accord te bu fekkoon ci réew mu walaa ba lañ ñi dogal prix bi tudd ay seenaa baykat nekku ca bu ma déggee bu ma déggee avant peut-être ñuy avancer bu ma déggee ne d'accordu leen ci moom moom mooy wundu lan parce que tey la door lan la ñu mën a jàpp ci ci ci ci situation bi sur le marché ndax yéen li ngeen jot am yéen a ngi koy jaay ak ndax yéen a ngi respecté li leen état wax muy le prix plancher à 280 francs waaw xam nga ñun yàlla ji mu ngi taw depuis le 3 juin nawet bi boo xoolee ak léegi dem na ci lu mat juróomi weer baykat bu ci nekk yaa ngi yàgg xamti woon comme ni ko Cheikh di waxee ku ci leer tey boo yoroon wantaay du upp sa sa sa sa sa sa meññeef mu wow fendi nga mën ko jaay da koy def ndax lan ak tumuranke ak yàkkamti jaay pour mën kon ñun commencé woon nañu jaay bu yàgg te ñun ay weeri weer ñu ngi def alerte na nañ joxe jiw bi te jéem a xool ay solution yoo xam ne baykat bi du dem di euh, euh, mbappat li nga xam ne moom mooy kon yéen a ngi jaay bu yàgg commencé woon nañ ko bu yàgg hmm. mais dafa am lu ci xew ñu commencé gaa ñi dañ doon jaay prix bi xaw a kawe ñu bàyyi ñun ñu yuuxu kenn waxuñu bay ñoom ñii nga xam ne ñooy opérateurs yi ak ñi leen nekkal ci marché bi. Mhm. commencé gën a wàcc prix bi. ci lañ profité ne nañ dem Misra ak gaar bu ndaw ca la ñuy nattee fekk prix bi effectivement wàcc nañu ne dañu bokk ci ci seen charte ci ni ñuy xoolee prix bi loolu ci la jëlee li nga xam ne moom prix bi bi ñu tey tey tey tey bi nga xam ne tey la campagne bi commencé dañoo jël ay mesures def ko joxe ko mu dem ba ci dix wala neuf mesures benn lañ ci respecté. ci may waxee tey mooy kii exporté bu mu jënd benn doomu gerte fii ci territoire national bu benn doomu gerte génn lii di frontière bi bu dul boobu du seko bu tijji du seko bu ñu fàkk du opérateur yi kenn ku ñu mu commencé jënd koo xam ne sa officiel ku ñu ku ku ñu agréé ñu gis ko ñun ñu ngi ci luuma yi di mbappat ñu tey man gis nañu ay 250 275 cent ba benn côté bi dem na ba 350 donc ci tey luuma yi gën a mag ci ci ci zone bi Misra ñu ngi doon jaayee deux cent envoyé na ay vidéo yoo xam ne si preuve à l'appui ñun suñu ndaw dañ fa dem nga dem fi nga xam ne mooy euh, Ndiba njaayam deux cent soixante quinze mu ngi ci Nioro bi nga dem Pekes ji mu dëkk ñu ngi doon jaaye tey trois cent vingt cinq. jàpp 300 mooy côté côté Tivaouane bi nga dem fi nga xam ne moom mooy Fass Bërigo ñu ngi doon jaayee 270 jàpp 275 beneen gerte bi ñu koy jëndee 300 nga dem fi nga xam ne moom mooy Jaxaaw ñu ngi doon jëndee effectivement 275 euh, ñoom it. Mhm. jàpp 300 nga dem fi xam ne moom mooy Diourbel du marché bu mag ñu doon jëndee 320 francs donc lii la marché bi joxee gom maanaam pëcc xool la waaye ci luuma bi lañ koy jëndee mais du ñoom opérateur yi alors que ci loolu mhm. dafa am loo xam ne ñoom dañu ko ciy tuumal bu ñëwee ci côté Seyna parce que pour nga bokk Seyna da ngay jo da maanaam ci en tant que kuréel mel ni ñun. Mhm. ñetti junniy tonnes ci ay facture moom ngay déposé. alors que ñoom joxuñu marché bi fu baykat bi di jaayee ji pour mën a jot facture. très bien loolu dinañ ci dinañ ci ñëwaat alors Cheikh Bombali yow tamit baykat nga tey lan la ñu mën a jàpp ci li nga xamante ne am nga ko dajale nga ko amaana mu dooni ton loo xamante ne tàmbali nga koo jaay ni ko état bu Sénégal waxee ci li nga xam ne mooy njëg li kilo 280. waaw soxna Fatou Abdou comme noonu ko Basirou waxee rek daanaka duñ si sore ndax xam naa comme ñëw bokk lu ñuy dund si loolu moom. duñ ci soree siy wax waaye comme loolu mu wax itam muy euh, ñooñu ñuy wax naa seeñaalan ñu ni ñooy taxawal prix bi dama ne état dañoo ëpp doole rek te ëpp nuy moyen waaye fa mu tase see see see seenaa fa la waroon na tase seeñaa ah, seeñaa sax na waroon na jëkkata ñaari dañuy benn ñoo bokk turandoo hmm. te ñooñ bokk ñàkk njariñ si si sunu gas sax ñun leen gën a mën a xamul ñàkk njëriñam kon moom defe naa bu doon am na daraja. mais seeñaa mooy jox njëkk li ngeen ne amul njëriñ yéen. waaw léegi loolu ma la wax mooy seeñaa googu noonu ko bas waxee seeñaa day loo xamante ni ñun wax dëgg yàlla ñoom waxuma la dara waaye état si boppam sax moo ko war a na tëj moo ko war a na tëj ba pare sax am leneen yoo xamante ni da leen koy teg. ndax yow man nga nit ki nga teg ko fenn ni ko dee ma xoolal yaay saay bët yaay saay lépp te saa su la defee di nga toxañu mbaa gis daaw fixé na leen deux cent soixante quinze. Mhm. ñoom waa Sonacos gi gi nga xamante ni ñoom ñoo war a na continuer di appliquer loolu ñoom ñoom dem nañ bay jënde quatre cent. ba pare li gën a méttee tam mooy lu toll ni loo xam ne état ko moom directeur ba dem ba taxaw naa diggante weer sàngam ba weer sàngam promotion la ku ñëw ma jëndal la quatre cent bu delloo bu jeexee ma dellu fa ma nekkan xam nga loolu mooy ñàkk respecté sa waskan ndax yow comme yow yaa fi nekkal état te yow wóor na la ni yow estimé nga ba xam ni mën ngaa jënde 400. waral mooy ñan ñooñu. ñoom mooy waa Sonacos. léegi comme yow estimé ba xam ne mën ngaa jënd 400 rek bi nga nee bëri rek waral ngaa a man ni man mën na maa jënde loolu tel koo wax daal maanaam waaw léegi ndax man question bi may laaj mooy ñi nga xam ne suñ classe gi nga xam ne danoo àgg si bu ñoree bu nu amagi wantaay sax dañ koy wupp mu mu mu wow ñu jaayu léegi ñun xam nga premier prix deux cent soixante quinze yi mu waxaan rek dañ sa doon dem jaay léegi boo sa jaayee yow moom bu ñëwee ni mën na maa jënd quatre cent ndax boo delloo ak sa bon dalay lay rembourser nga matal quatre cent wala yow da bokk sa ña sonn rek mhm. kon mel na ni léegi moom loolu ñuy tudde ay gros producteurs baykat yu mag yi ñoom daanaka ñoom ñoom ñoo ëpp bénéfice ci mbay mi ndax ñoom ñoom la ñuy jox jiw wi ñoom bala ñoo jaay deen nig ba gerte gi nekk prix bu baax ñu fekk leen fa nekk jënde ko njënd mu baax te ñoom dañ koy jëndee ci yéen njëkk lu ndaw lay doon. waa ñun moom ndax ñun premier prix ba comme moom daa am promotion te promotion ba ñun mënuñu sa àgg prix bu bon boobu lan man a jaayee. léegi si tey man doon naa ko kee noonu naa ko daaw ba mu nee gerte gi lii laa ko ni béy wees na mbuus dagg nan tànk yi ba pare. Mhm. am gerte moom wees na si yéen duutu leen ko am. mooy ñan waa Sonacos te ren jiitam yoon woowu la naaw ndax li tax ma wax la ko mooy. gis nga gerte. mais xanaa yéen da a bëgg na na la bañ a jaay Sonacos. dañ koy bañ ba tëdd ci naaj wi. Ah, naaj woowee ñu yend woon di bay ca luy continuer tëdd di ko bañ. ndax li tax ñu koy bañ mooy Sonacos dafa moom dañu amalul benn njariñ ñun baykat yu néew doole yi ndax duñu jox jiw te ñoom itam ba pare itam dañoo dàqut a jaay. dañuy jënd di jaay yi donc daax ñu noo jaay comme ñoom léegi defaral ñu diw defaral ñu rakkal defaral ñu dara dañuy jël dañuy baana baana ñuy baana baana nu bàyyi ndax ñu noo jaay ñu baana baana ni ñoom ndax léegi yow loo xamante ni yow fi mu ne foo ko jënde da ngay xaaraat mu gën a neex nga jaay ko wala dara gisatoo benn produit boo xam ne da nga naa lii Sonacos lay jógee mhm. xanaa loolu bu doon amal nañ njariñ ñoom bii fi diw nekkee ba coowul diw li ne si réew mi nga dégg Sonacos benn effort bu ñu def ba diw wàññi ko mhm. mais amuñu loolu léegi nag ñun ñu bëgg a nekk léegi nag comme ñoom daam ñoo xamante ni état moom la favoriser ñun